salaamaaleykum mbokk internetu dakar net point com comme ni ñu koy defee saa su nekk euh, tey nag euh, spécial Youssou Ndour la ñuy def ah Youssou Ndour yaakaar naa ne album bi muy génn moom la àdduna di xaar képp koo xam ne fan ci Youssou Ndour nga ak foo mënti nekk rek tey album bi ngay xaar moo la nekk douze titres alors duñ def rek dañ dama cay ànd ak tey sama frère Ousin borom voix yi dañ koy jox mu nuyoog mbokk internet dakar net yi. Mm-hmm. après ñu dugg ci waxtaan ba. Ousin ñu leen di di la ziar. Abdou maa lay nuyu ah donc di la suñu mbokk internet yi Dakar Net yi ñuy suivre. Mm-hmm. Euh, comme ni ko Abdou waxee spécial Youssou Ndour la ñu def ndax xam ngeen ni Youssou Ndour album bi tey lay génn douze titres. Mm-hmm. album bi nga xamante ni mi ngi tudd Mbalax moom la ñu bëgg a toj benn pan benn morceau yëpp. Mm-hmm. Euh, Abdou comme ni mu ko waxee ah invité ma si ah, en tant que consultant pourquoi pas ñu wax si suñu xalaat par rapport ak album bi. alors ah. d' accord mi ngi noonu kooku moom bu ko gisee xam ni sama frère la Ouzin ah. Mm-hmm. borom bu waaye chaque jour dafay toog di ko wax ci loolu. alors lu ñu def rek lu dul dugg waxtaan euh, dugg ci waxtaan bi mais Ouzin. Mm-hmm. dañoo gis euh, tey euh, Youssou Ndour dafa war a génne album. Mm-hmm. rakam produire ko muy Bouba Ndour. alors en fait naka nga ko gisee. waa bon en fait bu ñu sukkandikoo si si interview bi mu accordé bi mu accordé moom ñëw na ñëw na amplement ah si si si si album bi donc bu ñu bu ñu ci son bi ñu ci njëkk sax wax mën naa ni euh, mooy son bi nga xamante ni euh, kii na ko Thione Ballago Seck. Mhm. balaa ñëw ñëw si production bi nañu xaw a laal tuuti morceau yi. Mhm. Thione Ballago Seck daf ci way daf ko ci way. sargal ko si ah euh, donc mais li ci gën a am solo mooy Youssou Ndour dafa wax lu am solo ndax dañuy. Mhm. Thione bu nekkoon par exemple bu nekkoon Youssou yàlla moo dogal mu génn àddina Thione dina ko rendre hommage. kon dañu mën a jàpp ko loolu promettre la woon. bon du du promesse parce que xam nga dese kenn du ko prévoir. Mhm. mais comme dafa ni moom dañuy dafa jàpp ni. Mhm. bu fekkoon moom moo njëkk a génn àddina Thione Seck. Euh, Thione Seck dina ko rendre hommage. Mhm. et que du sax loolu rek moo tax mais ku ne xam na ne Youssou Ndour bu rendre hommage Thione Seck war na ko rendre hommage. parce que magam la. parce que Thione Seck monument la waaw voilà monument la koo xamante ne rak euh, magam la décédé mu rendre ko si hommage donc c' est normal et logique mhm. en tout boobu morceau bu intéressant la te Youssou Ndour mhm. daf ci wax ah, ci kàddoom ba léegi mu ne mhm. nee moom morceau boobu li tax sax mu gën ko utiliser parce que dafa demoon États-Unis dafa benn tournée ci morceau boobu noonu instrument yeeg mélodie morceau bi ñu bëri doon ko réclamer pour à ce mu def ko morceau maanaam euh, mélodie son bi euh, instrument ak yooyu ni ñu ko joué Euh, sans voix sans dara dafa neex ba tubaab bi doon ko ko réclamer bi mu ñëwee si xalaat ni euh, pourquoi pas waaw parce que wayal ndaanaan yombul waaw way ndaanaan mhm. yombul aussi bi ñu fàttali ko euh, bés bi ñu ànd nañ ñoom ñaar gis la dafa mhm. ànd way mhm. alors mi ngi noonu yaakaar naa ni loolu am na solo tamit duñ def rek duggaat ci beneen ci beneen titre yoo xam ne bokk na ci du titres yi wàññi ko moom yaakaar naa ni alors sénégalais yi xam nañ ko parce que génne na ko Euh, léegi euh, Ouzin dama bëgg ñu ñëwaat zéro déchet. Mhm. boobu bokk na ci titre yi. dese mhm. déchet ça de l'environnement hein? comme ni nga ko gisee maanaam benn mbalit mënu taxawaalu ci si dëkk bi donc Youssou Ndour bu si explication yi mu si joxe mooy dafa dafa jàpp ni mhm. sénégalais nekkul ak yow sénégalais nga rek da nga war a toog ñu lay defaral dëkk bi mhm. war nga participer ci defar dëkk bi et que defar dëkk bi mi ngi tàmbalee ci di defar sa gox di tàmbalee di jël mbali bi di ko ranger bañ mhm. euh, a taxal bañ a tidimal donc loolu moo xamante ni si continue way bi loolu la ci way d'après explication yi nga xamante ni joxe na ko ko alors mi ngi noonu ba léegi rek day desaat titre yi parce que euh, yaakaar naa du day bañ ñu jël temps moo tax ñu préféré jël ci euh, mhm. euh, dix titres yi mhm. waxtaane ko mhm. bu fa jógee tamit gàgganti ko tamit dégg naa ko ci titres yi ah. waaw lu moo gàgganti ko bu ñu koy dégg si olof mooy nit ko juum nga koy gàgganti comme nga wax dara nga juum ma lay gàgganti mais moom genre métaphore la ko def daf euh, maanaam dafa dafa utiliser moo gàgganti ko mais gàgganti ko moom ci fond morceau bi couple la genre ñaar ñuy bëggante di bëggante ku nekk dafa war a mm-hmm. gàgganti moromam. lu am solo waa ku nekk dafa war a dimbali moromam ci communication ku nekk dafa war a comprendre moromam. ku mm-hmm. nekk warul topp moromam. ku nekk également war na war na war na taxawu moromam. Mm-hmm. donc morceau boobu tamit loolu la ciy wax à vrai dire euh, gàgganti ko. kon yaakaar naa ni morceau boobu noonu. Euh, waaw c'est pour les c'est pour les ah, amoureux. waaw ah, pour pour ñuy bëggante ah. dina bari lu bari loo xam ne dina ko yeede ci diggante ñaar ñu bëggante. ñaar ñu bëggante alors bi nga noonu <laughs> bu ñu jógee waatee foofu day dem ci tatagal ko. tatagal yaakaar naa ne ñun booy. yaakaar moo boobu nañu xaw a jaaxal. Mm-hmm. mais comme tey sama consultant Ousin laa mm-hmm. laa dalal peut-être mën nañu wax tuuti euh, tatagal mooy la. Mm-hmm. waaw xam nga tatagal peut-être olof la bu bu bu bu. bu xóot bu xóot. bon tatagal si ñu olof sama olof leerul nag ah bu baax <laughs> damay wax rek sama sama niveau sama xel fi mu toll. donc tatagal mën nañ ko mën nañ ko waxee comme bu dee si mot bi quoi. comme ngay mel ne ngay tatagal nit maanaam soit ngay kañ nit ki wala nit ki ñëw see nga tatagal. mais moom fi mu ko waxee. dalal maanaam. waaw dalal genre dalal <laughs> waaw c'est ndax loolu mais moom <laughs> fu ñu ko explication bi Youssou Ndour joxe tey euh, li nga xamante ni ko si si si journal l'Observateur mhm. moom moom tatagal bi dafay dafay rendre hommage fans yi mhm. dafay dafay rendre hommage si parcours bi nga def na ko euh, li nga xamante ni coono yi nga xamante ni daj nañ ko si moom mhm. euh, li nga xamante ni sonn nañ ko si moom te bàyyiwuñu li ñu dégg lu nekk ndax moom donc daf leen di rendre hommage si effort yi ñu def ci moom boobu ba léegi mhm. début carrière am ba léegi donc morceau boobu euh, c'est pour les fans mhm. mm. d' accord aussi ñu gis ne euh, album bi mujj bi passé wayoon na ci benn way ne bu tudd nay Sénégal yëpp di ci coowa. Ah. Mm. léegi aussi tey dañoo gisaat tey ci titre bi am benn boo xam ne dafa war a spécial ñu fa taxaw waxtaan ko ko mm. euh, yaakaar naa ne jamono ji bokk na ci loo xam ne xew na ci réew mm. euh, muy fay bor. Mm-hmm. waaw bon moom fay bor bi mooy comme la ma la son bi <laughs> euh, album bi dafa garaaw ah non sérieux album bi li tax mu garaaw mooy titre bi nekk jàpp ne appellation mm-hmm. titre moom mooy continuer morceau bi et loin de la morceau boo xoolee li nga tudd léegi mooy fay bor fay bor mm-hmm. mooy soo ma amalee da nga ma war a fay. d'accord dama la war a fayeeku bu fekkee da nga baadoo exemple hmm. bi mu fay bor fi mu ko fi mu ko jëlee mooy mooy li ma wax si métaphore yi ba léegi eh, mooy maanaam fay bor bi mooy ñoom fu mu ko waxee mooy yow hmm. lépp la ko mun ti def si lu bon hmm. moom dalay lay baal mais alors doguma la euh, doguma la mais bu doo gis soo Youssou Ndour saa bu génnee rek yow maanaam day nekk benn genre boo xam ne tant que découvrir son bu carrément doo xam lu mu wax moom day junj mm-hmm. yaakaar naa tamit loolu bokk na tamit aussi euh, loo xam ne lu bari moom la xaar ci mm-hmm. albumam mm-hmm. Euh, boo gisee tamit Faybor bi tamit dama la waaw parce que ma ma foofu un peu Faybor bi loolu la si jublu quoi en fait maanaam fayantewul ak kenn képp lépp loo ko munti def que yow yëg nga ni def nga ko yëg nga ni defoo ko lépp loo ko wax wax mu sa wax muy ni ñaaw euh, lépp loo ko mos a jéemal defal day dalay dalay baal par exemple maanaam mm-hmm. fay bor utilisation mot bi rek la ñuy mais fond bi mm-hmm. waxul fay bor carrément très bien alors mi ngi noonu euh, léegi euh, day duggaat ci beneen titre rek chaque jour ak titre euh, ci la ñuy waxtaanee n'est-ce mm-hmm. mm, wax ji bari na torop wax ji bari na Mm-hmm. mun naa ni wax fépp la ci kër geek ci mm-hmm. mbedd meek ci marché beeg fépp mm-hmm. euh, aussi tam ñu gisaat ci euh, ci titre bi euh, ñun nag xamuñu mais suñu xel loolu lañu loolu la ñu jox titre bi nga tudd wax ju bari waaw bon wax wax ju bari comme ni ñu wax rek li ñu fiy expliqué yëpp suñu ko waxal boppam ah ci interview wax ju bari fi muy waxee mooy sénégalais nañu wàññi wax ji te liggéey donc moom entendement boobu laa si am mais également loolu la ko waxee maanaam wax ji bari na mais wax ni ko ba sax utilisé na benn bi nga xamante ne Cheikh Ibrahima Fall moo ko waxoon. ni euh, jëf du ñu ñu fay jëf. bàyyi wax bàyyi wax dëgg si biir suñu biir wax la du fay euh, Cheikh Ibrahima waxoon du ñu fay jëf. Mm-hmm. bàyyi wax. Mm-hmm. parce jàpp na ni euh, wax ji dañ ko war a wàññi gën a pour suñu jëm si kanam. alors Ouzin duñu defaat rek dañu duggaat ci beneen titre bi. Mm-hmm. muy ndox gisoon nañ tamit Youssou Ndour wayoon ko set. naka nga gisee. titre boobu. waaw bon l'eau est indispensable dans la vie booloo ñu gisee am na benn morceau bu mu woyoon boobu sax mën naa ne juddooguñ mu àndaloon seexloo mm-hmm. di ci wax set ak yooyu. waaye booy naaw rek set si waaw boobu sax je sais pas ndax si judd en tout cas dañu màgg rek di mm-hmm. que ñëpp mm-hmm. xam nañ utilité ndox. donc am na solo quand même mais pour un peu gagner du temps. macha allah loolu lay wax ci wàllu ndox njëriñ bi mu am ci doomu aadama ak yooyu. alors mi ngi noonu léegi euh, duñ a affaire yi dafa la. dafa la dafa laa yow ci sa xalaat. ah bon moom lu ma expliqué ah. Euh, dafa laa genre dafa laa bëgg. bon day wax comme ñaar ñu bëggante dafay wax euh, bon comme si biir contenu morceau bi dafa laa moom li mu joxe comme explication muy wax day euh, ça parle de l'amour quoi en fait. Hmm. maanaam par exemple Abdou muy wax ak Binta ni ko Binta Abdou dafa laa bëgg. Mm. genre foofu lay waxee quoi morceau boobu ça parle ça parle d'amour waxu mbëggeel mm-hmm. lay wax morceau boobu noonu euh, voilà yéen vous les amoureux vous serez servis quand même mm-hmm. mm. alors mi ngi noonu amoon tamit euh, way bu yàgg bu mu wayoon ci album yi yàgg sax mm. mi mool dañoo gisaat ci titre dafa mel ne du ko reprendre ban mm-hmm. nga ñuy andil foofu bon mën naa bañ a jàpp ni reprise la vu que déglooguñu son bi mais gëm naa ne dafay rendre hommage mool yi ba sax si biir interview mi ngi lim bay lim euh, moo li waa caaro yi di miir jof jof yor di moo lañ bëgg a wax foofu non mais par exemple morceau bële morceau bële mhm. bay woyaale ay ndar ak yooyu mhm. dañ doon xam ne doon xaw laal ndar quoi boo xoolee clip lañ ko tourné ah. mhm. mais bii nii dafa dafa dafay rendre hommage mool yi nekk si réew mi yëpp donc du mën du ñu xalaat ni reprise la mais dañuy jàpp ni dafay dafay way mool yi léegi bu ñu dégloo la ñuy xam parce que man euh, ni moo liiree interview bi amul benn yoon bu mu wax ni album bi am na reprise maanaam amul benn morceau boo xam ne dañ ko reprendre ay morceau yu bees la waaw titre yi peut être moo am ay titre yu xaw a nduroo mhm. donc mool bi mool yi daf leen rendre hommage suñu mool yi nekk Thiaré ma si nuyu baax baax sama euh, mbokk Karim euh, mhm. moom mi xamante ni waa Thiaré géej la mhm. euh, di ci moom ñooñu ñooñu lay rendre hommage ah. waa Thiaré mool yi réew mi yëpp Yoff Wakaam Ngor xam nga ñoom ñëpp lay rendre hommage Joal Diofior donc voilà mi ngi noonu ah léegi dañoo gisaat tamit amoon na beneen son bu mu ci ànd ak booy ma comme genre de featuring. Mhm. naka nga ko gisee. waaw boss daf ci invité ah d' après li mu wax daf ci invité ay jeunes. Mhm. invité nañ ci ay si côté cœur bi invité ci ay xale seen petit gàlle yi ah, et euh, may na leen doole foofu ek que lu am importance la parce que mhm. euh, rêve la si xale yi rêve la si si sax seen waajur seen i doom dem bay bay bay aw Youssou Ndour waaw mhm. ci album bi mu jël si mais xamuñu nag exactement kan ak kan moo bokk si kër yi parce que joxul joxul euh, détails yi mais wax na rek invité invité na ci seen petit gàlle ci côté yi xam naa bu ñu dégloo du ñàkk Moustapha dina si nekk xale bu am talent boobu macha allah non man mooy sama artiste ñu ngi koy ñu def dara ñu nag moom quoi incha allah. ok alors bi door yaakaar naa ne ah Ouzin Presse waxtaanee nañ titre bi yëpp. douze mm. mais yaakaar naa ne pour gagner du temps mm. euh, waxtaan ci dix titres mm. yi yi nga xam ne bokk na ci album bi. Mm-hmm. alors Ouzin yaakaar naa ne émission bi am na solo. duñ lu nga jox la nga tàggatoo. alors mu bokk internet ah, Dakar Net yi. alors balaa balaa maa la nga baal ma ko parce que. Ah, mm-hmm. c' est l' un de mes albums les plus aboutis maanaam album yi gën a. yi mu gën a liggéey gën a jox cër bokk mm-hmm. na si. et que boo xoolee mbalax ça tout dire mhm. instrument yëpp dafay retrouver si benn si benn si lu muy def muy mbalax mhm. donc c' assez important boo xoolee décoru album bi ça parle de deux mbalax na mbalax waaye wax na mbalax donc en tout cas mhm. euh, c' est un album absolument album la boo xamante mën ngeen ko mën ko jël ndax ay thème la yëpp ay thème la thème yu am solo la euh, donc kontaan na lu baax a baax en tant que euh, voilà consultant tey laajuma te dañ may laaj may wax mais j' espère <laughs> Euh, li nga xamante ni moom la ñu lii si interview lañ leen wax mais hmm. également suñuy idées yi nga xamante ni suñu xam-xam bu ndaw ci euh, li ñu xam ci Youssou Ndour moom lañ leen di wax hmm. donc kontaan bu baax baax ci invitation bi quand Euh, alors mi ngi noonu euh, émission bi leen doon wax sànq tey moom euh, wax naa ne ko ci bu may nuyoo na leen spécial Youssou Ndour tey ci la ñuy waxtaane mhm. aussi tamit Ouzin moom it comme mi ngi koy waxee consultant la parce que ju mhm. dëggee laaj rek moom moo ñuy décortiquer chaque titre rek maanaam mhm. lan la ci suñu père yu bëgg a wax duñ def rek lu dul jox dig daje leen incha allah jaa ngeen jëf